donc bu fekkee da ngeen bëgg a répéter chose aussi est-ce dina am cohérence voilà le même procureur moom moo fi nekk moom moo autosaisiru ci kaddu yi nga xam ne nag moom la imam bi fësal ak ba jaxate ba mu teg leen loxo donc euh, yaakaar naa ni euh, li nga xam ne moom mooy euh, waxtaan bi ñuy bëgg a def suba lu jam ci wàllum yoon dina doon occasion pour ñu daal di xool lépp li nga xam ne nag daa daanaka ah, sénégalais yi ànduñ ci parce que ni euh, ngi wax ni sénégalais yi ak euh, li nga xam ne nag moom mooy euh, justice bi seen justice daanaka am na espace am na espace bu ngànd maanaam wóolu wóolatuñu bëri na ci ñi nga xam ne dañ lay wax ni ñun wóolatuñu suñu justice bi donc sentiment boobu la ñuy am lan moo indi loolu yaakaar naa ne bu ñu daal waxtaan invité euh, jaaykatu caaf bi mhm. invité ki nga xam ne moom mooy étudiant bi invité ki nga xam ne nag euh, moom mooy euh, docteur bi en droit invité kenn ki nga xam ne nag moom mooy taskatu xibaar yi invité ñi nga xam nag ñoom ñooy takk der yi ah ñoom ñëpp ñu mën a waxtaan ci yaakaar naa dañ ci am solution voilà ñu ñu xaarandi ba léegi comme ni ko ma Mala waxee euh, timis bi daal di euh, euh, maase daane daanu ñu baal ñu timis bi daal di daanu bu ko defee ñu yàgg li li nga xam ne moom mooy liggéey bi fii ci pale de justice bu Dakar. Ah, voilà kon mu ngi noonu ginnaaw nodd bi ba mu daanoo nag ba tey ñu ngi fàttaliwaat leen ñu ngi fii nga xam ne moom mooy ci euh, palais de justice bu Dakar ngir rek itam mën a euh, fekkee si lii nga xam ne moom mooy euh, procès bi lee ñeel jaxate ak ki nga xam ne moom mooy imaam Cheikh Tidiane Ndao ba léegi yëf yaa nga ca biir ñu ngi xaarandi lan moo mën a duppee foofee ginnaaw nag ba 19 heures jotee. ba euh, tegal ay simili yu bëree bëri xam naa du ñàkk ci kanam tuuti li nga xam ne moom mooy euh, bile audience daal di jeex procès bi jeex juge bi daal di jël li nga xam ne moom mooy ndogal ñëw ci li nga xam ne moom mooy les faits ndax Bah Diakhaté dañ koy bàyyi mu delluwaat këram comme ñoom ni ñu jubilee ba dem wala euh, juge bi dafay dogal ñu daal di koy yóbbu foofee nga xam ne mooy ci rëbatu ci mën di am way leen di ànd ak lépp bépp xibaar boo xam ni duppee fi nga xam ne moom mooy ci palais de justice bi lee incha allah rabbi dinañ leen ko jox fàttaliwaat itam bu leen basé wu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jot a dem doon yuuxu naan ki nga xam ne moom mooy Bah Diakhaté bàyyi nañ ko loolu nekkul ay information yoo xam ne nii dëgg la du dëgg euh, ñu ngi fii nga ba léegi fi nga xam ne mooy ci terminal bi juste rek pour euh, xarandi lii nga xam ne moom moo nar a euh, fii nga xam ne moom mooy ci terminal bi lee woy leen di ànd ak ñun ndax Fatima sànq mi ngi doon ñëwaat doon def li nga xam ne moom mooy résumé ci lii euh, tax ñu jàpp ki nga xam ne moom mooy Bah Diakhaté euh, ci kàddu yi nga xam ne itam imaam Cheikh Tidiane Ndaw daal dina koy yëkkati ba euh, procureur daal di sàkku ñi fi taxawoon sànq itam maa ngi koy wax sànq c'est très important ñu ñu bamtuwaat ko moom mooy ñuy jàpp tànk imaam Cheikh Tidiane Ndaw li ñuy wax moom mooy imaam musul daw. mësul fay ay téléphone am xam nga ñu ngi doon wax naan dik mi ngi wër ki nga xam ne moom mooy imaam Cheikh Tidiane Ndaw ñoom nee nañu imaam mësul daw mosul fay ta euh, li nga xam ne moom mooy téléphone am mi ngi woon fi nga xam ne moom mooy këram te fële ko division des investigations criminelles DIC fa lañ ko fekk daal di ko yóbbu fële nga xam ne moom mooy ca centrale yëf yi noonu la demee ci wàllu jébbalu itam ak dama juum ñoom ñëwaat nañ ci ñoom ñi nga xam ne ñoo gën a jege imam naam ñu ne ci biir la ñu wax ak ñoom li ñu wax itam euh, dafa xaw a doy waar doo xam exactement naam <laughs> allez-y allez-y hmm? am naa ni wàccal euh, ki nga xam ne moom mooy euh, euh, kilifa Bah Diakhaté muy mhm. wéy juróom papam mhm. ñu ne téléphone dañ ko sàcc. téléphone déedéet papay Bah Diakhaté donc bàyyi ma lire information bi alors ñu ne le vol c'est pour tribunal de Dakar le téléphone du père de Bah Diakhaté volé. Ah, loolu fait divers la. ah. xanaa ci fait lañ ko mën a maanaam euh, xam naa ni yow fu ñu toll nii. allez-y waaw euh, may ma rek laal euh, la. may may ko mu ñëw s'il te plaît. laal la voilà ci li nga xam ne nag moom la suñu confrère itam bind. lu jëm ci li nga xam ne nag moom mooy tribunal fii nii ndax insolite la comme lan la ni ma la ko waxee sax noonu la insolite lañ ko jàppee ndax ñu ngi wax ni. <laughs> Euh, voilà coup de théâtre la ñu la ñu wax. lan la euh, hmm. le vol s'est produit devant l'entrée de la salle des flagrants délits alors que Mahmoud Diakhaté s'est absenté pour aller aux toilettes. à retour il a constaté Papaye Ba Diakhaté voilà tribunal pour soutenir doomam voilà mhm. retour il a constaté que son téléphone une marque Android avait disparu fan la ko def lan la loolu information waaye ñu ngi laaj paa bi fan la teg téléphone bi euh, xam nga loolu dafa di information bi nga xam ne tam euh, leerut maanaam tronqué lañ ko mën a wax ndax paa bi il mu jot ñu wax ni téléphone bi fan la ko euh, baay wala bu muy mujjee jëfandikoo li nga xam ne mooy téléphonam fan la ah ndax mënuñu wax ni ci buntu tribunal flagrant délit dafa génn foofu dem ci wanaat ba ba muy ñëw mu constaté ni dañoo sàcc téléphone am donc euh, loolu di euh, ñu ngi ñaan ñi ki nga xam ne nag jël na téléphone u Pape Baye Diakhaté na ko dellu à son retour nee nañu il a constaté que le téléphone malgré plusieurs recherches le téléphone le téléphone est resté introuvable <laughs> xam nga loolu xam nga li ñuy wax foo dem bu ñuy di voilà euh, pour wax leen ni euh, c'est c'est euh, grave na parce que déjà dañuy digression la rek ñëw ci kaaw Khalifa Ababacar Sall tam gis nañu ni Khalifa Ababacar Sall ci enterrement bi mu demee ci enterrement lu toll ni enterrement ci la ñu daal di sàcc li nga xam ne moom mooy téléphone am. maanaam ci waaw mooy ci enterrement dem si yàlla gason Mbengue voilà ci lañ wax ni ci lañ jëlee téléphone portable ki nga xam ne nag moom mooy Khalifa Ababacar Sall donc pour wax leen ni. Euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ñëw bokk ci association yi ñoom xaaruñu benn événement yaa ngi euh, bàyyi xel ki ñëw ba tribunal tribunal si nga xam ne foofu la ñuy tëjee ay nit ah nga daal di ñëw foofu di sàcc téléphone baayu jàmbur nga di ko yóbbu ngir yàlla ñu ngi leen di ñaan delloo leen delloo leen téléphone u baayu jàmbur ndax téléphone Android la mooy téléphone u pape baayu jaxate donc euh, bu leen ko teg ñaari naxar fu mu toll nii mu ngi bëgg ah ñu féexal doom ji leen boo leen ñëwee jëlaat li nga xam ne moom mooy téléphone papp pape Baye Jaxate mhm. daanaka yërëm leen paa bi delloo leen ko Android am euh, loolu laa am euh, li nga xam ne mooy information. parce que bëggoon nañu xam exactement Omar Sow fan la nekkee nii. ndax mi ngi ci biir salle bi wala dafa ànd ak gars yi. Omar est-ce que demul parce que ci gars yi la mbooloo bi nga xam ne nag moom moo euh, doon jubilé. Mm-hmm. Omar Sow ci la duggoon xëy na euh, mën na am mu am euh, beneen information mu daal di delluwaat. Mm-hmm. waaye bu muy ñëwaat bu muy wàññeekuwaat teguñu ko bët. Mm-hmm. donc loolu tam précision la yi nga xam ne nag dinañ ko indi. ndax bu muy wàññeeku gisuñu ko waaye nag gis nañu ni Omar Sow di jubilé ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci coalition. Euh, Benno Bokk Yaakaar wala ñi nga xam ne ñoom ñu ñëw dooleel la Bah Diakhaté waaw dama gis euh, kenn ci génn sama xel dem ci mètre El Hadj waaye nag euh, du moom yaakaar naa ne du moom mm-hmm. dafa xaaw a mm-hmm. waaye je pense bien que du maître El Hadj mm-hmm. d'accord kon mi ngi noonu ñu nii di xaar xam naa ne du yàgg léegi verdict bi daal di daanu ci euh, procès bi nga xam ne euh, moom moo euh, am fii nga xam ne moom moo ci tribunal bu Dakar Mamour jërëjëf ñu wéy di ba léegi ànd ak yéen bu defee bépp xibaar boo xam ni jóge na foofu incha allah rabbi ñu ñëw ci. ak lal ko nii toog. Hmm. ah audience bi yàgg na de bi. mooy suñu 4 heures du matin ya rek. Hmm. procès Adji Sarr Sonko. defe naa mooy jour biñ biñ ko waree jour bi ñu bi ñu nee day te te ba pare dañoo dem ba 5 heures ñu ne après dinañ joxe verdict bi après. Mm. après waaw te boobu ba 5 heures du ñu ne dañuy joxe waat verdict bi bon mu ngi noonu daal parce que yaakaar naa c'est pas la première fois procès am fii mais yaakaaruñu woon de peut-être procès bi dina yàggee nii maintenant. dañuy patienter rek ñu xaarandi ba xam mbir yi du yàggati parce que maître El Hadj Diouf moom moo mujjee woon yor parole bi waaye depuis biñ ñu waxee ni mi ngi plaider ba tey surement war na pare mais comme euh, euh, xam comme xam comme suñu naataangoo mi ngi ci biir te gis nga depuis sànq maa ngi koy texte donc jotaataguma beneen texte il est 19 heures 49 donc jotaguma benn. Euh, information ci biir maa ngi xaarandi rek mais en tout cas euh, xaar bi xaw na yàgg mais aussi ñu ziyaare suñu mbokk internet yi parce que ñoom dëpp ci suba ba tey aussi ñu ngi topp suñu direct yi vraiment euh, ñu jaajëfal leen ah xam naa ne ñoom aussi bëgg nañ xam verdict bi su ko defee ñu wax leen rester connecté rek waaye en tout cas information bi nga xamante ne nii moom mooy euh, wàllum téléphone bi ñu sàcc tamit loolu doy na waar. Mhm. parce que aussi man tribunal daal ku fi ñëw di sàcc téléphone xaw ma loolu aussi nan la mën a nekkee. Mhm. maintenant bu fekkente ni xëy na paa bi déclaré na ko dinañ def le tout ba retrouver ko. mais en tout cas mi ngi mi ngi noonu ma nuyu di jaajëfal waa diaspora bi ah. bu fekkee mën nga jege suñu confrère bi. Euh, waaw Samba bi Samba Biagi Samba Biagi moom ci tribunal bi la jógee. d'accord Samba Biagi. defar ñu benn lecture bu ndaw ñu xaar ma ñëw fii nii. Mhm. defar ñu benn lecture bu ndaw par rapport ak li nga xam ne nag moom la jot a jël fi nga ci ci tribunal bi. d'accord kon mi ngi noonu ñu ngi dugg ko euh, génn euh, commencé naa lëndëm ba ñu fii ñëw nag naaj bi tàngoon na jër waaye ñi ngi wax ak yéen nii euh, mi ngi commencé lëndëm nit ñaa ngi génn ndànk par ndànk fii nga xam ne moom moo ci tribunal bi le ngir mën a delluwaat ci seen i occupation ña doon yuuxu nag naan Bah Diakhaté est libre ñoom xam naa ne fa ñu jëm. Euh, yegg nañu juste rek pour rappeler waat leen li nga xam ne mooy audience bi jeexagul ba léegi mu ngi wéyandi fii nga xam ne moom mooy ci palais de justice bu Dakar diggante ki nga xam ne moom mooy imam Cheikh Tidiane Ndaw ak itam ki nga xam ne moom mooy Bah nekk activiste républicain gis nañ fi nag tey ci subaak léegi ñi nga xam ne ñoo jàpp tànk bajaxate Diakhaté ñeneen ñi nga xam ne itam dañ fay ñëw uniquement pour imam Cheikh Tidiane Ndaw soit ñu nekk ay doomu daara ñu nekk ay imam wala ñu bokk ci sax la ñu nekk li nga xam ne mooy ulama lum ci mën di doon ñoom ñëpp ñëw nañu ñeneen itam ñëw nañu ngir dañ ci kumpa am nañ ku fi euh, kuñ fi tàllal micro sànq li mu wax moom mooy la personne de Bah Diakhaté ne m'intéresse pas moom li ko